ayo mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal euh, dellu seeti nañu seen émission bu mag bii di lu ko waral ah, lu ko waral nag ay ay ay waxtaan lay def fi yoo xam ne nii yu bari te fasantikoo la euh, ndax euh, xam ngeen ni société bi léegi daanaka mën nañu lépp ay fait divers la ndax axiru samaan moo mel noonu fu nu toll rek ngay dañu nit ñi dañu xëy di gis yoo xam ne nii yu ñu miinul woon di gis la. moo tax nag GCB jóg ni moom dafay sensibiliser dafay alerte mais dafay xamal nit ñi aussi yi nga xam ne ni mooy danger yi pour ñu mën ko moytu seen émission lu ko waral nag dellusiwaat nañ ci thème bu am solo ñu ngi gërëm nag euh, Arona Cissé di doom ci ndem si yàlla Fallou Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko muy góor gi fàllu Cissé di woon ko bëgg Sénégal di woon ko dégg olofit euh, doomam jii di Arona Cissé sax bokk na ci ñuy jàpp léeg-léeg ci liggéey GCB ci sunu émission yi ci jubbanti ci wàllu wolof kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko euh, jaajëfal mais tey jël euh, seet nañ ci émission bii di lu ko waral euh, am na loo xam ne moom lañuy laaj lu ko waral ndax jamono moo toll foofu yàqu-yàqu jamono la wala lan moo ko waral muy gis nañu parents yoo xam ne nii maanaam wayjur yu góor yoo xam ne nii léeg-léeg seeni doom yu jigéen dañu leen di tàq bu ñuy nekk xale ñu leen di tàq ba nu nekk mag ba xale bu jigéen bi dem ba ba jël age nga xam ne maseur na mais dañuy continuer sax léeg-léeg ñëw di tëdd seen kaw papa di bokk ak moom lal maanaam jaxasoo jaxasoo goo xam da nga naan sax ñaar ñi xëy na ñaari way dencante la te gis nga loolu danger yi mën a indi euh, am nañ ci jot nañ fi ay ay cas yoo xam ne nii dem nañ ba ku góor ki maanaam papa ji dem ba jikkoy doom aadama jàpp ko ak doye di mu dem sax ba ëmbal doomam ndax lan doom ji fu mu jóge tëdd ci kawam léeg-léeg sax mu déplacé wu dem tëddi néegam te mu doon jigéen ju mat xam nga jigéen vraiment loo ko jur jur jur jur am na foo xam bu fa tolloo am na foo xam nit bu la fa àggee ci jaxasoo te yow amoo utiliser woo sa xel mën ngaa def loo xam ne nii xëy na ñaawteef lay doon loolu nag lañuy ñuy raat lu ko waral te mu bari loolu ci dëkk bi daanaka mën nañ ni néew na dëkk booy dem te doo fa dégg ñu naan euh, diw papaam doon na ko sàkku wala rakku papaam doon na ko sàkku rawatina sax papa ji la jur loolu nag lañ indi léegi ci penc mi di laaj lan moo ko waral ñu ngi leen di wax ni leen numéro boobu daw ci baaru écran bi képp ku bëgg a jot euh, GCB rédaction bi numéro boobu ci ngay wootee que ça soit muy service commercial bi ak lu mënti doon boo wootee ci numéro boobu rek di nga jot euh, waa GCB incha allah kon ñu dalal suñu gan ñi nga xam ne ni du duma wax sax ay gan mais ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi muy la Linguère miin ngeen ko ci plateau lu ko waral ak Baye Assane Mesre bi nga xam ne nii nee naa mooy Sénégal ndax moom xëy na wax ji mën na bëri kaf gi mën na bëri mais en général lu mu leen wax lu mu reetaan lu reetaan lu mu yéeme yéeme bu ñu ko vérifier rek dañuy fekk mu nekk dëgg kon Baye Assane ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal. alhamdulilah. alhamdulilah jërëjëf Bathima Samba si kàddu yi am solo yooyu nga xamante ni yëkkati nga ko ñu ngi lay ndokkeel waaye di ndokkeel wala boog la Linguère. di ko siyaare bu baax di siyaare son yi bu jóob mi nga xamante ni mooy jàppandalal liggéey bi ba mu askan bi man see jot ni ñu ko bëggee kon nag ñu ngi nuyu 14 régions yëpp di nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi waaye di nuyu sëriñu daara yi ak ñi nga xamante ni ñooy aar daara waaye di ndokkeel waa bitim réew di leen ñaanal la nga xamante ni dem nañ wuti ko fa yal na yomb ci ñoom di soññaat gouvernement bi ña nga xamante ni ña ngi fay feebar bëgg a ñëw nay fexe ñuy ñëw waaye ña fay wàcc ab liggéey na leen di taxawu bañ man di ñëw ndax lii nga xam ne mooy daayira sax daayira ya ñoo mujj di taxawu askan wa pour man di leen indiwaat waaye di wax fàttaliwaat bitim réew ñoom nañ dem dem bokk sa daayira ya nga ni ña am ca réew mooma waaye di nuyu nag dem ba Dubaay di nuyu soxna Fatou Gueye ñu ngi koy siyaare bu baax a baax waaye di nuyu ajaratu Abi Mbay xam ngeen ko ñibbisi na mi ngi fii Sénégal nuyu Maymuna Senghor ak ñëpp ñi nga xamante daal ñi ngi bitim réew Amar Mbay nekk fii si marché Grand ak Cheikh Ridial ñi ngi ndokkeel ñëpp ñi nga xamante ni ñu ñuy bàyyi xel di wax gën leen di abonné te xam ne seen mbégte mooy suñu yitte lépp lu ngeen commentaire ànd nañ ci ndax ñu ak yéen la jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Assane kon kooku mooy Baye Assane Mesra nuyoo bi gudd na lool xam nga moom am nuyoom nag moom da ciy dugalaale ay cote yoo xam ne nii doo comprendre waaye daañ ko ko nangul ndax moom boroomi cote la laal li ngeer ñu ngi lay nuyu. maa ngi ma Samba di la nuyu di la ziar jox sa wàccuwaay di ziar Baye Assane Mesra di nuyu Soy bu Diop di ñaan yàlla jàmm xew fi yàlla defal ñu sutura gu yaatu gu sawan gu bawan di nuyu soxna a Diop eh, Espagne ak soxna Tabara Thiaw Laay eh, borom sang bu baax bang la ziar lu bari bëri da jox sa wàccuwaay. waaw jaa jëf mu ngi noonu kon man it ma nuyoo rek ndax comme que ñoom ñoo nuyoo man ma nuyoo man maa ngi nuyu sama soxna comme ni ñu koy waxee première dame mais di nuyu sama mag bu jigéen nag Ami fay mu ngi ci kër gi vraiment baax ci man eh, baax ci sama njaboot wax dëgg yàlla di nuyu sama jabaru grand boo xam ne nii mën naa ni moo gën ci man muy Marème Fall Marème maa ngi lay nuyu namu naa namu naa plat yu baax yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax Baye San ñu dugg ci waxtaan bi waxtaan bi nag tey base bi mooy gis nañu léegi phénomène bu bees ñuy laaj lan moo ko waral muy waajur yi nga xam ni dañuy jaxasoog seen doom yu jigéen jaxasoog ñoom jaxasoog ku ëpp dem ba sax maanaam ku góor ki waajur wi dem di tëddee doomam lan moo waral loolu ndax yàqute jamono la wala nit ñi dañoo feebar wala wala wala lan moo xew Baye San ndax waaw kay rédaction bi fii ñu jot fi lu mel noonu. Mm-hmm. chaque jot fii war ngeen a waxtaane vraiment kaa sàngam kaa sàngam ba ci démb rek il paraît que yónnee nañ leen ko man démb nekku fi moom mais bi ma ñëwee ngeen ma ko wax leen ko fi yoo xam ne ni vraiment waajur wu doon sàkk doomam ci mel noonu daal lan moo ko waral. waaw kay jërëjëf Bàcc Masamba ñu ngi lay nuyuwaat di nuyuwaat ñi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel mm-hmm. euh, loolu nag li koy waral lépp léegi si yar bi la ndax dafa am góor ñoo xamante ni dem nañ ba samp kër dem ba am ak njaboot te xamuñu lay samp kër xamuñu lan mooy ak njaboot ñooñu nag il faut ñu leen di duma. ñu leen di duma ndax weesuwuñ ay duma. kan moo duma. waaw kay kan moo leen war a duma. Hmm. du ñàkk kon kenn war leen a duma si xel wala mu duma leen si doole ndax munoo dem ba nga xamante ni am nga sa njaboot. Euh, am sa doom joo xamante ni boo ne ko jëkkër a ngi ni mu ni la doom a ngi ngay bokk ak moom di fanaan wala ngay bokk ak moom di waxtaan wala wala wala te damay gis gars yi lu bëree bëri ñu koy wax ñu naan nit dangaa fexe war a fexe sa njaboot ñeme la d'accord sa njaboot naka lañ lay ñemee bu fekkee am nañ soxla si yow ñu ñëw wax la soxla si buñ noppee delluwaat man mii di wax ak yéen as ndongo laa <coughs> gone gu tuuti laa mais sama ay doom sax yu jigéen sama doom ji musuma di toog ak moom nii comme ça ñuy bokk jataay te gone la duñ bokk jataay duñ bokk fanaan man gone bis bi mu feree rek wërtata fanaan ak yaayam bis bi mu feree wurtata fanaan ak yaayam boo fa nekkee boo fa nekkee même boo fa nekkul sax wurut di fanaan ak yaayam ndax yaayam am na si waajtaay woo xamante cummikaay yi mu koy teg muy teg cummikaay yeeg yooyu yëpp te gone yi xam nga gaaw ñoo nelaw léegi dañoo gaaw a yeew cummikaay cummikaay xam naa ni sama cummikaay mbër laa ci xamoon voilà mbëri nag cummikaay yi nga xam ne mbëri dañ koy am hmm. cummikaay yu raw yooyu jigéen ñi dañ koy am am nga góor ñi léeg-léeg am na coono bu ñuy amee boo xamante ni boo ñëwee ba tëdd sax di xaar sa soxna mu nekk ci cummikaay yi balaa noppee si cummikaay yi rek mën ngaa nelaw. Baye Assane xam nga Baye Assane côté yi ngay côté dama bëgg après nga décodeel ma ko point par point. léegi dinaa ñëw ci cummikaay yi. Euh, la Linguère. Ah, man maa ngi woon fee sa maa ngi woon fee sa kii ba de. nga xam ne dañuy nekk seen doom yi quoi. waaw léegi di après bu ma ñëwee di nga ma décodeel di nga àggale loolu mais di nga ma décodeel euh, yi nga. côté la Linguère. gis nañu léegi phénomène bu bees bii. Ah. mooy euh, góor ñu bari en général seen doom da leen di takk doom bu jigéen mm-hmm. xëy na bu nekkee bébé sax wala mu dem baam ay l'âge ba fii ba 10 an sax mm-hmm. xëy na garaawul mais da ngay gis koo xam doom day dem ba am presque 15 ans 16 ans ba commencé doon jigéen mm-hmm. am ween lépp lu jigéen di am mu am ko léegi nga gis nag mu commencé gën a jaxasoo papa ji ñëw tëdd ci kaw papa ji bokk moom benn mbaaj ji est-ce que loolu wóor na est-ce que loolu wóor na ci diggante góor ak jigéen même même bu fekkee yaa ko jur mais bu fekkee ni mu ko jur war na mën a nekk fi ma bu ma nee war na mën a nekk mooy waajur yi nga xamante ni euh, ñoo ngi taxawee responsable euh, xam xam luy loolu euh, xam luy yar sa njaboot xam luy mën a téye seenu njaboot mën leen a nàmpatal si seen bopp am na ñoo xamante ni mën nañ ko mais am ñoo xam ne réglé wuñu réglé guñ koy mënee mais am na ñoo xam tamit yàlla dafay dogal ñu am doom bu jigéen yàlla xiir lañ ci moom ñu tuddee ko seen yaay wala ñu am benn bu jigéen kese jël ko. féetewoo ko bëgg ko bëgg goo xamante ne si fu ñuy dem ànd ak moom mais ko ce bëgg ko war na mën a tax nag sa doom bu jigéen dem ba presque mën naa ni ngeen jéggal ma ci kàddu gi toll ni ndayam lépp lu ndayam di euh, am am na ko nu ndayam di toll toll na ko mu ñëw di tëdd sa kaw di bokk ak yow mbàjj di sol loo xam ne nii loolu sol bu sexe la di tëdd sa kaw est-ce que war naa mën a nekk lool lu donte sa doom bu jigéen la dafa am lu xel di nangu ak lu xel lu nangu mais lu mu si mënti doon ak kam ji ak yaay ji ak seen xel fa muy dem ak muy nekk ak tolluwaayu Euh, kii daal euh, nu nga ko ciy mën a waxee sax maanaam seeni jikko ndax man dama cee gis loolu gis naa ko am na koo xamante ne si sama xarit la mais moom papaam papaam moom rek la am ci doomu jigéen mi daf ko bëgg mais xale bu jigéen bi tamit xaarul sax yaayam di def lépp lu yaayam nar defal papa muy fóot muy mu mën ci doon moom day taxaw pour def ko lekk bu papa ji wax balaa yaay ji di dem di ko taxaw di def moom tëb na dem def ko parce que daf ko woo nekk xaritam mais tamit mu koy jàppale ci lu nekk mais teew ñoom ñaar am na seen diggante fu mu yem dina ñëw léeg-léeg ñegenaayu ci jël ñegenaayu ci tànkam di doon waxtaan du ko nëbb daram papa ji teg ko ci yoon defal nii defal nii defal nii jigéen nii lay def jigéen day fonk boppam nii lay toppatoo jëkkër nii lay sëyee mais nag ko ak ñi nga xamante ni si dañuy nekk ak seen doom dugg ci biir mbàjje di bëree jàppal bàyyil muy sol yenn sol yu sexe yi ñëw di nekk sa kaw di wéeru sa kaw yooyu góor gu nekk góor nga te ñëpp yemoon hmm. am na waajur yoo xamante ni si dañuy wax ni kilifa lañ mais duñ kilifa kilifang lañ kili kilifang ñoom dañ naan nii rek lu ñëw rek ñoom seen yónne wu ci lijjantiwul leen doom nag mën nga koo yar def ci moom jikko bi la neex mu te du la ragal mais dina la respecte ndax ragal ak respect du du benn. merci beaucoup Baye San yaa ngi toll woon ci góor ñi dañ leen a war a duma su ma juumul. war a duma ndax bàcc. Mhm. kalaasuk Ahmadou Bamba Dieng mi ngi CCB info. Mhm. léegi yow da ngay am sa kër. Ah, yaa ngi laal Ahmadou Bamba Dieng de ba Ahmadou Bamba làmmiñ ñu damul ci poosam Ahmadou Bamba ak Mouhamed Silla ña fa nekk ñëpp sa groupe ba hmm. groupe CCB info ci ngeen bokk hmm. ak pilis ñu hmm. ngi ndokkeel ñëpp voilà léegi da gis dangay gis euh, bàcc ku demee ni kalaasu Ahmadou Bamba Dieng gi teel sa bu baax bàyyil fil teel sa micro ah. gis ko demee ni kalaasu Ahmadou Bamba Dieng gi euh, nga am sa kër nekk fa nga dem liggéeyi fenn boo ñibbisee nga fanaan fa yaag sa soxna ngeen xëy sa soxna day dem sa euh, waañ wa wala sa soxna sax dem marché yaa ngi am benn soxna nga nelaw ba 10 heures nga jóg sor sa sa tubéy ju tuuti sa waay fopp sa sarbe doo ko woddoo de gàccoo ko si sa mbagg di jaay doole di dox di wuti sa wanag wanaan da ngay sangu ji romb boy yi sa silib silib nga mën naa ne caleçon xuma moom ngay sol romb gone yaa ngi fo nga romb leen dem sangu rombaat leen duggaat si néeg bi fomp sa bopp ñàngal ndékki sax boo koy def doo sol mbubb ñooñu ko def yooyu dañ leen war a di duma dañ leen war a di duma gis nga bàcc nit da ngay am respect sa njaboot da am respect gis nga sa doom wërta gis sab kiloot sa doom wërta gis sab kiloot boo demee bay génn si mbedd biti war ngaa sol lu jot nga dem sa wanag wa sangu ji génnaat bu fekkee si ëtt bi ngay sangoo. mais sa doom bi jigéen bi nga xam nag daf laa taq ba foo nekk ni muy teew tëdd sa kaw déet wu dama ni wërta gis sax sab kiloot wërta gis sa yenn col yi wuroo di bokk ak moom jataay da ngeen a war a joxante cër wurut di bokk ak yow fanaan wuru di bokk ak benn lal di. mais ki nga xam ne foo nekk fekk la fa nag. mais doom mais doom boo doon dul bokk jotaay kan ma ko yar dafa sa doom. Mhm. wurut wuroo tëdd si ab lal. Mhm. sa doom di si tëdd. ah sa baay sa loolu moo ko tere wala aada moo ko tere. dañoo jàngal ñu am respect. si mhm. sa waajur sa lalu baay wuroo see tëdd. sa lalu yaay waroo see tëdd loolu lépp l'islam dañuy jox sa lalu yaay mën nga cee tëdd mais jàmbur moom daal ci dëkk bi ba moo tax njaaxum yi di fi mën nga cee tëdd mais jàmbur bu jógee fee waru cee tëdd mais yow miy doom mën ngaa tëdd sa kaw la ndax nag euh, tey jii nit ñi ñoo ngi juum ci benn côté boo waxee doomam yéeg ci kaw lal toog boo déggee ñu koy wax xale boo xam ne dafa yërëndi ko bu tëdd nekkee si lalu yaayam cëpp cëpp cëpp waaye magum jëmmu magum jëmmu mu ni léng bu dëgg dee dëgg xale bu yaru mel na mu war a man du ni loolu dafa bon wala dara normal mu tëdd ci kaw lalu yaayam mais yow mi di jàmbur maa nga nekk feneen feneen nga ñëw tëdd ci kaw lalu kilifa loolu lan dul nangu waaye sa lalu yaay wala sa bu papa mënees na jee tëdd mais sa doom tey jii bu fekkee ne yow da nga koy yar yaa ngi dégg xirtal ko sa bopp. waaye kan jox kàddu sa waay wala. man maa jox sama bopp kàddu ah, ndax fekkee ma ci boole. Ah, ngi dégg tey ji sa doom sa yow mi nga xamante ni yow yaay papa sa doom am na lu muy mel ak yow dégg nga fooy toog dafay toog mais tamit dafa ci moom yar boo xamante ni booy toog di waxtaan ak ay nit mu may la sooy toog di waxtaan ak yaayam mu may la mais yéen ñaar nga toog war ngaa mën a toog nga yee ko ci àddina xale xamul dara xale buur la lekk ku ko laal taseeg buur. waaw question réponse laa bëgg mu gaaw maanaam euh, loolu bu amee faute bi ci kan la. bu lan amee. maanaam par exemple doomu jiitle bi ñëw wala sax doomam bi la jur ñëw di la fréquenter yow ko góor ki ba ji koy maladikal la ba nga xeemeem ko ba tëddee ko su amee ci faute bi ci kan la. loolu yi loolu ci papa ji la. papa ji la tegal sa baaraam mu ñëw Assane yow faute boobu koo koy jox. si waajur wu jigéen bi. waajur wu jigéen lan moo ci euh, yor. bu yam gis nga doom. Mhm. waa juróom jigéen moo ko mën a yar mais du baayam baayam leen la man ci moom gëdd wala woo ko xas ko kese la man ci moom wala mu duma ko waaye waa waajuram wu jigéen moo koy naan ko jombal lii rusal lii bul teg fii sa tànk tegal fii sa tànk defal nii defal nee mais nag dem bay jaxasoog sa baay ngeen di bokk fu ngeen tëdd yow koo xam ne day sëyee ay xar di sëyee ay xar di sëyee ay bëy di sëyee ay ginaar kooku ba gisee jigéen nu mu mën a mel da koy sëyee asan foo gisee kuy sëyee ginaar ak bàcc bàcc mën na maa wax lu doy waar waaye duma wax lu du dëgg lii ma lay wax lépp dama see teg bët sama bët a ma may kuy sëy ay xar ak ginaar ak bëy mhm. kooku danga bàyyi sa doom doo ko bàyyi léegi nag sa doom dafa la war a ku dem bay sëy ak mala moom wax dëgg yàlla moom boo gisee nit doo bàyyi sa doom léegi nag maanaam li waral sa doom wër du bokk ak yow fenn fu ngeen di ne lu dut mu woo la yónni la lu mu woo la yedd la wala lu dul nga ñëw nuyu ko ne ko salaamaaleykum mu ne maaleykum salaam nga ne tekk mun la bisimilah ko pap maa ngi lay nuyu mu fay nga génn dem sa yoon mun la ndaka njàng nga ne ko maa ngi si kawam yaa ngi góorgóorlu mu ne waaw. a ñàkk mais bu fekkee da nga doo wéet ak sa mën a teg ci yoon kon mbedd mi yar la sa papa mbedd nan la la yare te nga am ay waajur sa yaay man mi bañ ban la sa yaay man bu ñuy bokk jotaay man du ma bokk sama doom ay jotaay man laa wax say doom nag da ngaa war a bokk ak ñoom jotaay sama sama doom yi ma gisagun soo amee ay nga amal ñu am habitude dem toog ca néeg sama doom laa sama sama sama doom man tout tànk lañ xamaguñ lu bari mais jikko ji ma gis ñu yore ko man neex na ma trop amul jeneen jikko ju ma bëgg ñu jàkk mm. sa ñoom jurut ji ñu yore ñoom loolu ni ma gisagun ñu koy dox doy na ma te yaakaar naa ni si li ma leen gisee nii ñuy doxee suñ su ma su ma leen suñ ma dut gën du gën te man musuma leen wax dama la wax rek nga la lu ngi jàng mu ne maa ngi jàng yaa ngi góorgóorlu mu ne maa ngi góorgóorlu jeex na amatum amatuma lu si ñoom ko def waaw léegi ban xale mu la na amul fenn waaye yaa ngi jàng nga yaa ngi jàng man jàngatuma loolu si loolu sa fët la loolu sa fët que yow yaa taxawul fa nga war a taxawee mais du mu si mën ci doon doom fexeel bi bu mu la euh, ragal na la rus ndax doom bi lay ragal mooy ki ngay wane ginnaaw mu def naka sudul noonu. rus ak ragal mais ki lay rus rus ak moo leen wutale. moom maa ngi ñëw. dama ni doom fi xel ba rus ak ragal lan moo leen ma ma ñëw nga bëgg ma jaxase wax ji. non damay laaj rek rus ak ragal lan may ma ma leeral ko wala laajoo wala bëggoo xam ay ca dama ni bu fekkee ni yow da ngaa bëgg sa doom ragal la doom bi lay ragal mooy koo xamante ni boo ko wanee ginnaaw mu toj dëkk bi nga voyagé mu toj dëkk bi doom bi nga xamante ni si boo tëddee nelaw mu tëb dem def leen kooku daf laa ragal ndax bu la gisee du ko def mais ki la boo ko wanee ginnaaw boo ko wanul ginnaaw yëpp naa dem fenn sama papa nekku fi kon du ma dem naa xaar ba mu ñëw ma mi di la ko yaral soo toogee sa saal say doom ñu toog xool jar na sax nga leen di léebal léebi mag euh, ñuy dégg mm-hmm, waaw jërëjëf jërëjëf laa li mel ni xaw a daw sa responsabilité waaw souvent boo gisee léeg-léeg yenn doom yi nga xam dañuy dugg ñu leen génn leen dem génn leen dem kan ma koy wax kan ma koy wax wala jël foofu ba tey yéen a ngi mhm. góor gi nga xam ne day fréquenté doomam ba koy tëddee mhm. waaw foofu lañ nekk waaw man nag fréquentation fréquent fré noonu koy fréquenté fréquentation boobu waaw loolu laa bëgg bëggoo ko bëgguma ko mais doom nag day defaa day takk day takk waajuram takk takk takk fan takk moom takkale la est-ce que tamit Assane aussi góor bi nga xam ne dafa xool doomam wala mu xool sëram xalaatul ci moom leneen lu dul xool ko bët doom est-ce que du dafa feebar. non dafa feebar ndax am na sama xarit boo xamante ni maa ngi koy nuyu baax xañ na dina bàyyi xel émission bi dafa am ñoo xam ne dama leen di doomoo maa ngi koy nuyu ku demee ni naa Saw bu ma gisee dafa may kott taqaloog man gone yi dañ may kott di fotowoo ak man te wallaahi hasim sama sama yaram dara du si funki fenn da ngay wax rek da ngay yëg dara barke alxuraan benn du funki da man bàcc man bu doon funki bu doon xool bu ma nga lay kootu yow ay jongo ma doo nga lay kootu di photo gi waaw ñun waxu ay jongo ma rek a kootu ba ma sentir dara ndax ndax nañ may woowee papaak tons ak nangam ma sentir dara am na benn waay boo xamante ni sama xarit la maa ngi koy seetaanee gone yi di ma kottu nee moom fi toog fi lay toog di am lu mu yëg nee na bu duggee si car rapide bi tànkam bi bu ko roofee si tànkub jigéen mm-hmm. nee na tànkub jigéen beneen roofu si tànkam bi waaw nee na maam balaa wàcc car rapide bi day fees dell dell del dell balaa wàcc car rapide bi nee na day fees dell te nag bàcci koo xamante ni car rapide la ngay dugg roofaloog jigéen tànk mm. fees dell kooku boo tëddeeg jigéen foo jëm nga naan sama doom ak sama doomi jiitle kon feebar la xam naa ni feebar la bon la aussi mu ngi jaawale mais jigéen tamit par exemple boo xam ne nii Euh, du sa dara daf la sopp rek ñëw kott la am fu mu la àgg. boo yëgul dara it da ngaa feebar. wallaahi Hasim gis nga man bàcc. yàlla léegi tax may wax. jigéen man na maa def ne te du ma yëg dara. ah Assane. damaa eh, xaj na yàlla la. xaj na maa yëngu tëggee mais bi jigéen mën na koo létt sama sikkim bi jigéen mën na see fo. Ah. jigéen mën na maa def lu ko neex te du ma yëg lenn. waaw yaa ngi ciy nangu ñu koy folek. kon neex na la loo neexul woon dina mel ne aw xët ci yow eh, dañ may napp nappee ñu dañ leen napp nappee yow gone dañ may napp nappee mais mus ñu maa nabb nabbee ba ba ba ma yëg dara yàlla xam na ko laaye sooy bu jóg. non sooy bu koy xamu ci dara. sooy bu bul ko dugal déedéet sooy bañ na ko ba jigéen du solo sax bañ na rafet na ndax moom talul loolu. sooy bu ñëwee dina seetaan émission déggoo ma de yow yaa euh, sa baax na dégg nga beneen bi mooy bu leen ko déglu ku ko déglu di nga daw sax. man daal man daal mbokk yi lenn rek ragal man. mooy nga jël sa njaboot di leen ñuy miin sa yaramu niin mm. di miin say yenn kàddu yu ñaaw ak say kàddu yu salte di min say appel yi nga xam ne da nga koy wax ak yeneen i jigéen. waaw mais xam nga ay kàddu yi ngay wax ak sa yaay bokk di fanaan ak yow. ci biir néeg bi fekk nga tamit euh, la Linguère image bii ñu ñu yónnee xëy na sax dadul ay teggin ñu mën a wane lépp ci ci vidéo bi mais kon ñu wan leen lépp parce que nag vraiment dëgg day boot seede mais li wérte wóor mooy am na loo xam ne nii bu la fa nit àggee que ça sa doom sa mag wala sa lu mu doon yow même boo même bu dee nit nit ku wér nga sax. sa jikko mën na changer kon may sensibiliser góor ñi nga xam dañoo toll ci may sensibiliser góor ñi nga xam dañoo toll ci nekk ak seen ak njaboot gu jigéen ngal la ñoom nañu xam ni ñuy comporté woon ndax Assane li muy mën a mën a ruube sànq wax na ko góor vraiment am na sa cër yoo xam ni sa doom waru ko gis. waru gis su ba ba dem ba surtout mu dem ba nekk ko nag. xam xàmmee am na sa yoo xam ni sa doom waru ko gis. waaw sa yel bi. sama doom du ko gis. yow caméraman bi mu nee na da ko yeb de. cameraman ban. <laughs> sa yelkam d' accord man ba léegi moo tax doom ji mënu koo gis. ba léegi ñu ngi sensibiliser rek. Hmm. góor dafa am nu mu war a comporté woo ci biir këram. jigéen tamit yow nday ji tamit dafa am noo war a comporté woo ci sa biir kër. parce que waaw ci sa doomi góor yi ak ñi nga xam ne ay jàmbur lañ sax di ñëw ci kër gi. mais xam nga nga nekk jigéen. Euh, yàlla bind la benn façon bindin boo xam ne macha allah nga waddoo serviette boo xam ni sax matul deux mètres deux mètres carré seen pooj yi seen pooj teg ko fii wàcc nii góor ñi wéruñu ah am na y a des gens yoo xam ni dañoo malade dañoo feebar bu nu gisee yenn yi loolu daf leen di attirer seen attention ba dañuy topp action boobu ba dafa leen di jaral lu nekk que muy do nit ku maanaam góor gi tamit kilifa gi tey am na parti boo xam boo ko gisee sa doom bu la seytaan iblis dafa bari doole du yow yaa mais seytaane mooy def loolu. Hmm. moo ñëw dugg la nga nekk di xalaat ci loolu mu lay travailler nga ciy xalaat mu lay travailler day dem ba. daf lay daf lay jaral na nga topp ko nag. bàcc. Hmm. kii def loolu moo bon sa doom sa waay juddu nga meeb. ah yoo tudd. na nga koy mais seytaane moo bari doole. seytaane mu est-ce que affaire doomu aadama doomu la mën a doon mais boo nekkee doomu aadama ngay bëri looy moytu sax amul ah, seytaane kay am naa sax non non topp sa bakkan a am non non doomu aadama doomu aadama rek la mën a doon mais ba nga nekkee doomu nga sa yëpp matul sa xel mën nga war a moytu lu bëri bëri nga tàggoo de dégg nga nga war a moytu lu bëri bëri nga mënaguma tàggoo parce que bàyyeeguma la noonu day yomb bàyyeeguma la yow ku la déglu tojum réew topp a am seytaane man gëm kon yow giraawaal yi nga def yëpp da nga topp sa bakkan mais ah, waaw man kay wax dëgg yàlla lu ma def moom ah. lu ma def sama bakkan bi laa topp mais dara jàpp ma jinne jàpp ma rab jàpp ma seytaane jàpp ma mais doo yonent doo xutbu waaw doo yonent doo xutbu moom amul yonent sax am na sociologue bu ñu bëggoon a jël sax xam naa ni dañ koy woo sànq ba léegi mënuñu ko jot pour laaj ko ndax doomu aadama yi lan moo waral loolu souvent ñuy gis yu mel noonu te nag réellement ñi ko dégg dégg nañ ko ñi ko déggul dégguñu ko mais ku ne xam na loolu dafa am ci société bi chaque jour nga dégg fi viol kii tëdd na jabari magam tëdd na jabari rakam kii tëdd na kii kii tëdd ni genre yu mel noonu rek ngay dégg euh, doon nañ ci bëgg jokk jokkoo ak benn sociologue mag boo xam ne nii xelam dafa màcc jëm ci yu mel noonu mais jotuñu ko xam naa suñu prochaine émission daañ ko daañ ko contacter incha allah Sanjoogu la Sanjoogu de war na see xereñ non Sanjoogu baal jàmm Sanjoogu nee na dana la porte plainte kon mbokk yi ah, xam naa ni foofu la jaar rek euh, jox ñaar ñi ñu tàggoo tàggoo bu gàtt ñu yëkkati jotaay bi mais nag leen wax ni leen lii day continuer allah ndax dafa yitteel askan wi chaque jour rédaction bi dinañ fi jot ñu fi jot ci ay ay message yoo xam ni pour ñu waxtaanee. ñii sonal jabari jàmbur yi jot ko sonal jabari jàmbur yi. Assane tàggatool. ñii sonal jabari jàmbur yi. waaw tàggatool rek moo gën ngay wax ay jabaru jàmbur. di di cotte istati jabari jàmbur yi. naan ko sa photo bi nice. waaw waaw baax na tàggatool. am na solo waaw ñu ngi nuyu mboolem ñi ñu doon seetaan. di kontaan si ñoom ñëpp di leen wax ni leen. waaw di sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ba suba incha allah yal nañu yàlla defal jàm def jàmm ci réew mi di nuyu président son bu Diop di ko wax ni ko ñi doon ay président ñëpp ñañ jiite ñu leen di jaay doole nañ leen duma buñ leen duma wut ñañ jiite mbir mi du sot son président la bu fekkee ni muy doxe du noonu nañ ko waxtaan ak moom ñu woo gone saa njóog yi ñu jàpp ko duma ko. duma kan sunu président. sunu président président directeur général. waaw ak ak mboolem ku doon. président waaw baax na tëjal ma micro yow tëjal ma micro soxna si. tàggatoo waaw yow da nga bëgg ñu ginnaaw ba yàlla defee ñu pare ci jàmm salaam rek ñuy ñaanalante tamit ñu fi teew teew yu gën a euh, kii euh, yàlla def si euh, jàmm dafa ñu xéwal gu yaatal di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Baye Assane ak son bu Diop di ñaan sutura àdduna ak ba laaxira di ñaanal ñëpp jàmm alhamdulilah di nuyu tamit soxna may mun a soxna Diop depuis Espagne soxna Tabara Thiaw laay soxna sëñ Magu Thiaw laay ma lay ziar bu baax a baax a baax sëñ Magu jërëjëf waaw jërëjëf mbokk yi kon émission baa ngoogu jamono yi passé nag doon naa leen fi woo nee nit amul nit amul lu dul fi mu dëkk nit amul lu dul li mu moom man région de Thiès laa dëkk bu ma doon tiitaroo Sénégal bu ma doon tiitaroo ci àdduna benn réew Sénégal laay tiitaroo mais bu may tiitaroo tamit euh, Sénégal benn dëkk Thiès laay tiitaroo waaye nag bu may tiitaroo dëkk bi nga xam ne mooy sa cosaan dama naan Pout laay tiitaroo lu ma am falaa ko bëgg a yóbbu incha allah kon maa ngi ñaan képp ku dëkk région de Thiès wala nga dëkk Pout maa ngi lay ñaan na nga abonné ci chaîne bi di ko seetaan ndax lu am solo la te man yéen laa fi nekkal maa ngi nuyu sama waa kër yëpp bàyyiwuma kenn ki ci nekk xale ba ci sunu kilifa gi ci biir kër ga di nuyu mbooleem sunu mbokki téléspectateurs yi di leen wax ne leen numéro bii ngeen di gis muy daw ci baaro écran bi mooy numéro service commercial bi euh, ak koo xam dafa bëgg am accès ci biir GCB boo contacter numéro boobu rek bu soobee yàlla di ñu jot ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah rabbi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu